weer gannaaw ba njàngum ren mi tàmbalee université Cheikh Anta Diop de Dakar ba tey ibbeegul ni ki yeneen faculté yi faculté de lettres et sciences humaines di amal ay cours en ligne ngir dab dabaatal at mi loolu nag étudiants yi di ko ñaawlu. li nga xamante ne lañ mës a bañ mooy les cours en ligne. mooy ñu jàng ci internet yi loolu lañ mës a bañ parce que soo gisee ñu bañ ko dañu doon def li nga xamante nii mooy dañuy tollale étudiants yëpp ñu bañ ñu bañ leen a gënalante. moom mi jiite commission pédagogique bu amicale bi xam na ni du lii nañu waxante woon ak njiit yi. assemblée faculté boobu noonu mooy mooy kuréel gi nga xamante nii moo gën a kawe ci faculté bi moo gën a moo sut sax doyen faculté bi donc kuréel googu noonu su xasee ba décider ba statuer ci benn affaire rek loolu dafay am. te loolu la ñuy appliqué te loolu aussi toogoon nañ ci ba décidé ci décidé woon nañ def ay remédiation en présentiel donc Euh, ñu def ay cours en ligne. njiital université bi tàmbali nan di amal ay cours ci bërëb yu bari ci Dakar waaye li muy indil jafe-jafe étudiants yi bëri na. ñaari affaire yi nga xam ne daf ñoo gën a métti mooy dañoo tëj campus social pare tëj campus pédagogique pare ne ñu kaay leen jàng si ci sët yi nga xamante ni xamuñu ko même ñoom administration yi dañuy sonn pour trouver ay salle donc da ngay ñëw pour am foo dëkk amoo foo dëkk benn ñaareel bi nga ñëw pour bi nga xam fan jàng jee te xamu fan ngay jàng jee nga nekk di woote ku nekk nga laaj ko man sama téléphone mu ngi nii woo di ma laaj fan la ESEA nekk fan la lii nekk fan la lii nekk institut islamique étudiant xamuñ fu mu nekk man mi nekk Dakar bi ma xam fu mu nekk yàggul. weerum juin 2023 ba léegi nii université Cheikh Anta Diop bu Dakar ubbiwaatul ay wuntam li ko waral mooy ne ñàkkum kaaraange guy am ci biir campus bi bu nu sukkandikoo ci njiit yi amicale des étudiants faculté de lettres et sciences humaines jàpp ni loolu li ko waral politique kese la.